bokk yi gën a abunu sante suñu boroom julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa moo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jéggal tey ndokkeel jullit yépp ci gan gu tedd gu mag goo xam ne jamono bi muy ñëw jullit yi soxla nañ ko lool ndax li mu àndal ci ay xéewal yu ñuy laal ak yuñ munta laal suñu boroom jagleel ko loo xam ne jagleelu ko wenn weer ndax mooy weer wi nga xam ne ñetti fukki fan yi mu doon fukki fan yu ci nekk am na nu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ku ko def taseeg lool yàlla nañu ci yàlla yóbbu teñ mën koo joxe na ma ko santaane te ñu rombaat ko nag lu yàgg yàgg muy ñëw lu yàgg di fi fekk kenn ku nekk su amee gan gu muy séentu na gan nga mel na la waajtaay way toll bu dee weeru koor des na ko waajale ñaari anam am dañoo xam ne dañuy waajal koor gi waajal koor gi mooy saa bu ndog jotee yëf yi wër ko ni ñu koy faral di fàttalee léeg-léeg saa bu mbës san jotee noona bu xëdd jotee noona waaye nag waajal koor dëgg-dëgg ni ma ko junjee ku nekk gan nga séentu ak nam koy waajale ni ñuy waajale koor ci xolob jullit buy buy dund mooy bu fekkee daa amoon i fan daaw yu mu mu fay ko koor gee dikk te fas yéene bañ koo def kooru ñii la ko maam daa def rek da ngay dégg ku naan moom barab sangam lay dem lu war fa xanaa fa dem dañoo desee dëgg dëgg dëgg lan mooy koor ay tegginam ak i atteem mu fës yéene bu demee tënku ca jàngal leen ko ba bañ mën a woor ni moom waaye dem ne fa rek dem ne fa daal loolu aada rek ndax koor moo julli yu juróom ñoo bokk at julli yu juróom lañ cay taamu jàkk lépp teewut fu waay nekk te amul jàkk yi bu waxtu juleem jotee mën na fa julli suñ ko tënkoon ci jàkk rek rek rek dana metti lool ci ñenn waaye noonu la demee fu fekk nit rek mën na ko fa jullee kon fu foo fu koor fekk nit war na faa mën a lay jar dëkk ak mooy moom muy jàngale ci koor gi bind yoo xam ne at ba at lañ koy mën a am ndax am nosam moo demee noonu luy koor kum war kum wur nis di woore li muy bañ ak li nag kon bu ñu sukkandikoo ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy sukkandikuwaay bu wóor bi mooy nee na su koor ñëwee weeru koor shahru ramadan suñu boroom day ubbi bunti aljanna félangal félangal bunt nag mooy bunt boo xam ne delloowuñ la koy tëj dañ koo bàyyi noonu léeg-léeg ngelaw ñëw uf ko mu ubbiwaat ngelaw uf ko mu ubbi ko ku bëgg a dugg dugg su boobaa dañuy ub dañuy félangal bunti aljanna def lu nit nit def lu ko yóbbu aljanna day yomb la waaye su boobaa nag dañuy tëj wunti sawara yépp tëj ko caabi gàll bant ci biir wër ko wëralewaat ko dellu si gàll bunt ba ci diggante bi nga xam ne ku néew ci biir mënu ko ubbi loolu mooy def nit nit def lu ko yóbbu sawara bu fekkee tënku na ci koor bi du yomb waaye it seytaane mi yóbbuwaate sawara dañu koy jéng tënk ko jéng tënk tënk mooy tënk bu dee daaba ñaari tànk yi waaye jéng ko mooy jàllaw rek boobu ndey tànkum ndeyjoor bopp kanam bi ak tànkum càmmooy boobu gannaaw kooku ku xam ne ab doxam du gaaw kon raw ko dana yoon muy war woo xam ne it nit mën na saa jàng bi dëgg dëgg ragal yàlla mooy la mooy teg sa tànk fa ko yàlla teg aaya ba faratal koor ba mu koy jeexal dane laallakum tattaquun yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladi min qablikum laallakum tattaquun taqwa boobu bokk na ci Euh, dugg ci néegam yam fa denc ne fa mu tëj ko te balaa kenn dugg dana la yëg mu ubbi fa mu koy denc xool mu ne fa mu soxla ko xiif lool mar lool taq wallahi tax mu ubaat ko wan ko gannaaw koor des na ko ci jàng waaye bu ñu am ci koor gi rek bu koor jàllee itam fépp fu gisee loo xam ne dañ ko ko tere na jàpp ne ñu ci koor ndax suñ bu mag bi jàngale na koor bu bañ a lekk bañ a naan kese ndax bu ñu ci alxuraan lañ ci fekk inni nadartu li rahmani sawma tey fas wax ci wax du ma wax ak kenn kon taxqiq li taqwa des na ca xool sa diggante ak taqwa a xam fu mu toll des topp ndigalu suñu boroom it loo xam ne mi ngi jaare ci not sa bakkan mooy bi ma jëkk wax rek waaye jullit it dana ci waaj waajal boppam waajtaay woo xam ne saa bu ko yàlla soxlaa rek mu ne maa ngi saa bu ko yàlla soxlaa mu ne maa ngi li ko daganoon lépp mu won ko gannaaw ci bëccëg bi kon mooy lam am lépp da koo bàyyi ngir yàlla waaye ab jullit si dana ci yëg dana ci jàng yëg li ñeneen ñi yëg am na ñoo xam ne buñ ne courant baa ngi coupé mën nañ ko bañ a yëg ndax fañ dëkk moom du coupé mukk loolu du yëg-yëg loolu dara waaye nit nit ñi danañ jàmbat ndox mu néew fañ dëkk ba ñuy sonn lool door a am ndox te du ko yëg ndax fa mu nekk du saa su ne nit ñi danañu jàmbat <clears throat> kenn ku nekk naan jibaam dara néewu ca man na ko ba ñu yëg ndax bu xoolee lam denc xam na ne lu ne guun la te am na ñu koy néggandiku ñoo xam ne bu nee tëll ñu jox ko leneen mu daldi ko ci kooku mën naa bañ a yëg ne jibay nit ñi dara nekku ci waaye nag bu yendoo xiif yendoo mar yendoo tëj ay gëtam ak mboolem yi ñuy tëj bu nit ñëwee ëllëg ne ko dama xiif dana xam ne xiif lu am la su nit ñëwee ne ko ay gëtam daa neexut dana dana xam ne gëmmoon na ci lu mu waroon xool te xoolu ko dana xam ne gëmmu am ay gëtam du gis am suñu ñëwee ñoo ko mënta waxee dana jàng ci koor ne kon ndekete koor dana tënk nit ba du wax lu mu war a wax kon bu ne bu ñu ne mënta wax mën na ko gëm kon ab jullit dana ci yëg li jullit yi di yëg ni bu dee dee mar mu ko ne amuñu lu lekk dana xam lu mu doon bu ñu ko ne ndox amul fi ñu dana xam ñàkk naan lu muy wàññi kon boog kooramu noonu lenn ci wàccaayu koor nañ koy waajal daal mooy ku amoon bor na gaaw fay te tuub tuub ci ak jaamu yàlla mooy raxas sa ndab bam set bicc la nga bëgg ñu yàkkal la ko ñu yàkkal la ko kenn ku nekk nag lu nekk nag bu ñu koy yàq ak fañ koy def na mi toll ci yaatuwaay ak ub setaay bu bëggee ñu yàkkal ko ci mu jariñoo ko ci jàmm kon képp koo xam ne amee woon na bor na gaaw ndax kat bor warta am rakk ginnaaw nee ko wér amoon na gàllankoor daaw ba ren ji koor gaa ngi dugg si waat na gaaw fay ndax weer wi soreegul waaye weer la woo xam ne nit ñi danañ ci xamante ne ñun ñii kat ndekete ñoo bokk pas-pas da ngay gis ñu séddale fi barab kuñ jox mu kiñ jëkk jox danaan ah nga baal ma dama woor keneen na may itam mu ne ah kon kat fii ñu war a fi nekk ngeen baal ma loolu suñu woon koor gi mën na ko bañ a waaye it nit danañ ci jaar sopp mbokkum jullitam lool di ko roy da ngay gis fi ñuy defee julli yooyu ñuy def gannaaw gee ñu di ko tudde ay naafila taraweex da nga gis càmbar yoo xam ne bala ñu julli gee ñu ñëw toog di nekk dañuy taxaw ba kay julli sëlmal ba ñépp dem suñ demee jokk lañ ca mën a jokk am ñoo xam ne dañuy ñëw ci digg bi dañuy dàkk digg bi am na ñoo xam ne dañuy nekk ba nga xam ne rakkaa bii ñaar rakkaa yii bu noppee sa sa foog moo ciy tegee mu door a ñëw am na ñoo xam ne day ñëw felli waxtaan ne yàcc bañ def sa foog wétar sax duñ ko yëg ndax topp xàll xàll ja waaye ñi ciy soppante ñi ci bëgg a wax mooy koo xam ne daf lay soññ ci jaamu yàlla ci góorgóorlu ci ko niñ ko jàngalee ci aj naan lu waay yaafus yaafus dana gis kum tane lu waay jàmbaara jàmbaar dana gis koo xam ne moo koy raw loolu moo ci nekk danga gis koo xam ne kii jom daa xëy ba bët set yandu fanaan ba bis ba dellu si mu soog a jéem a naa jéem a xëy kooku nag gannaaw dana xëy rek jàmbaar waaye nag xëy moom ba gaa yi xëy lañ wax suñ bu mag bi daa am ku ñëw ne ko dama bëgg nga mbax ma mu tos goo xam ne li ñuy wax euh, li ñuy def si mbay ba muy nangu xos mu ne ko bul gis ganaar sa kër bul gis ganaar mooy balaa ganaar yow na nga xëy dem bala nga ñëw na ganaar fatu ne ay tool nga wax de mu ne ko waaw mu ne ko jaamu yàlla yi la arkaani islam yi la jubloo wax moom tool yi ñuy bay muy taw di ñor la la jubloo woon wax waaye sëriñ bi da ko ne waxuma tool yooyu daal waaye arkaani lislaam yi ponk lislaam yi juróom nañ ca dox doxin woowu bul gis gannaaw balaa kenn xëy xëyal te bul njëkk a wàcc kenn na nga nekk ba ñëpp wàcc nga soog a wàcc ba xam ne wàcc mënut a ñàkk gisatoo la ngay liggéey ne ko tool nga wax de mu ne ko ah, mu ko na yóbbaale ponk lislaam digal naa la ko ak ku ko jot kon boog nit danañ ko soppante ndax diw moo ma dàq moo ma gën a teel a yow ci kaw bi moo may gën a teel yow moo may dàq rak julli bala moo julli suba moo may dàq jàng alxuraan ci bëccëgu weeru koor moo may gën a taxaw ci tarawih yi moo may gën a joxe ndogu moo may gën a ba yiñ ci def yépp yu baax na gàññ waaye ak mbokk tam léeg-léeg mu feeñ ci junj naa ko léegi ci njëlbéen bi waaye mbokk gi mu jubloo wax rek mooy yéeg ne sa mbokkum jullit yurut lu mu ndogoo tey nga ne du ma ndog te te bokkuma ko moom wala ma jox ko ko toog bu ci waat na moo tax suñu Fallu Mbakke daana wax bu weeru koor wi ñëwee weeru koor wi ñëw na liggéey suñu borom moo ko digle daal ne ndigalu suñu borom loo gis pay gaa ngi ca pegg ba waaye ku bañ a def ndigalu suñu borom ku nekkit lam lay lam koy fayee ma ngi ca pegg ba fay ga ak lam koy faye du benn ci aw làmmiñ la muy fayee kooka fay ga ak lam koy faye du benn yanuñ ca lu musal dal ne te booba kat liggéey bi gënoon a rëy ci murid yi mooy tabax jumaay Tuubaa waaye danaan wax ne ku mën a boole koor geeg liggéey bi nanga leen boole soo ko mu bàyyi liggéey bi te woor ndax ndiglu suñu borom dal ne ku ci amut loo woore bu mu doon aw lay gis ak ñàkk woor na ñëw ma dina jox looy woore ba ba ngay woore bu ñu woree nag ku ne sàkk pexe sàkk pexe ku ne sàkk xam ne du ay fo du ay caaxaan saa am nañu yàlla di waxal yaa ayuha naas am ñu muy waxal yaa ayuha lazina amono ku ci génne moo ci génne bopp rawatina nag muy digle wala muy tere su dee lu muy digle fay gaa nga ca pegg buy sotti muy sotti